mbokk yi eh, benn waxtu moo jot eh, fële nga xam ne moo di ngay mexe moo jotete eh, ca Tëngéej ak i tamit ndaari paleen ci diir bu gàtt nu dellu si am yéenay jukki leen xabaar yi ci njolloor gi jëwriñ ji ñu gàll ci ndoddam wàllu napp gi fi mu toll nii na ay tànkam ngir nekk dem bokk jotaay ak ñi nga xam ne tam ñu siq wàllu napp gi xool nu ñuy def gannaaw ba jëy yi amee jooj am na ci lim bu takk boo xam ne bii ñu ngi ci loxo yi ñi nga xam ne ñoo di way takk der yi daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi li aju yi tamit ci béréb bi nga xam ne moom la ñu duppee asbef fii nu toll dañoo ngong koo jànkalaar te kenn nangu wala féeteeg fett ga ba tax na euh, tey ji ñoom kilifa yi ñi nga xam ñoo fa nekk ñëpp tey ji am na ci ñooñ dañoo di daagu daagu geet li ko wund mooy soxna si nga xam ne moo jiite béréb boobee na leen abal ndax doxalin wa dafa lëndëm na guddi wax set dañ ci dikk léegi ci biir xabaar yi fanweereelu at ak ñeent ngi ni nu ci fàttaliku Cheikh Anta Diop ay jaar-jaaram li mu fi bàyyi ci ak ndonom ci wàllu xam-xam professeur Diallo Diop daañu ko déglu léegi ci biir xabaar yi loolee nag itam ndax itam ba ak parti bi nga xam ne moo doon RND mel na ne fi ñu toll nii ni ñu ko waroon ndonal yi gars yi dañ ko xaw a saax-saaxe baaboog nañ ko waroon a toppee am na lu ca desandi am na ci kenn ko xam-xam màcc na ci wàllu fànn yooyu la ak njàngat yooyu la ah, di professeur bi di Moussa Diaw daañu ko déglu léegi ci biir xabaar yi jàngale itam ci làkku réew mi day tax rek loolee lu ñu la jàngal nga gaaw koo xam Cheikh Anta bokkoon na ci ab xeexam loolu daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi daan ci toftale itam incha allah yeneen i xabaar wàllu tàggat yaram El Hadji Malick Ndiaye yëglekaay yi daan ci dikk ak Habsa Elimane xarale gi Alassane Wade nu dem ba Ndar fekk fa Yves Tendeng gaañ ñi ñu ngi lëlu lël boo xam ne bii li ko wund mooy gannaaw jiyee ji fa amoon jàppante yu métte métti ban jàpp ab lim bu leen ci loxo yi ñi nga xam ne ñoo way takk der yi nappkat yi ne yoo xam ne mooy gën a jàppandal seenu napp ci géej gi nga xam ne moo di ko gànnaar loolee nag mel na ne eh, coow li dafa ne kur ñu jokko ji ci ak eh, kii di Yves Alioune Lo ñu ngi lay ne daal en tout ñu ngi fi nga xam te moom mooy gouvernance bu Ndar fi nga xam ni fa la euh, jëwriñ gi ñu dénk wàllum napp gi euh, di Alioune Ndoye wàccoon depuis ci suba tey jii ay boobu dix heures euh, ba léegi la réunion bi daal di jeex muy réunion huis maanaam réunion bu nga xamante ne moom la toppatoo ak it ñi nga xam te ñoom ñoo fekk li nga xam ne moo jëm ci wàllub napp gi léegi nii la rek bi daal jeex jamono ji sax moom ñuy janoog ak taskatu xabaar yi waaye nag balaa muy jël kaddu <coughs> jégal ma ki nga xaman ñi nga xam te ne ñoom ñoo ngànk euh, nappkat yi ñoom ñoo daal di jël kàddu gi euh, ngir rek euh, wax ak ñi nga xam ni ñoom ñooy taskatu xabaar yi ñoom li ñu xamle moo di rek nee nañu euh, ñu ngi reconnaître maanaam nangu nañu ne euh, ñoom ñoo tooñ euh, ci maanaam yàqu yàqute yi nga xamante ne yooyu ñoo amoon keroog affrontement yi amoon keroog nee nañu en tout cas ñoom ñoo tooñ maanaam seen i ndaw ñoo tooñ ndaxte état bi yàgg na leen lépp lu jëm ci mbirum licence de pêche waaye nag li xewoon keroog nee nañu en tout cas ñoom daanaka ñu bëri ci ñi nga xam ñoom ñoo maanaam ñoo jiite nappkat yi ànduñ ci woon waaye nag dafa fekk ne am na ay ndaw yi daal rek jóg Euh, dem rek te jàpp nañu ne daal am na leen ñeneen euh, ñi nga xam te ne ñoom ñoo leen poussé ñu def lu ni mel waaye nag ñoom loolu cautionné wuñu ko ba tax na rek ñoo ngi jégalu baalu ak état bi baalu ak askan askan mim réew rawatina askanu ndar ñi nga xamante ne ñoom ñoo loru euh, keroog ci yooyu la jàmmarloo jamono ji nag jëwriñ bi moom tam jël na kaddu mu ngi wax Euh, ci euh, mbir mi waaye nag li ñu na a jàpp den daal moo di affrontement yi amoon keroog ñi nga ñoom ñooy euh, jiite nappkat yi ci ginnaaw bi ñu génnee ci réunion boobule daanaka xam nañu ne en tout cas ñoom ñoo tooñ te ñu ngi baalu ak Euh, askanu euh, mim réew ci euh, yooyu la yàqu yàqute li ñu jàpp na ñu mën a wax moo di rek ne ñoo ngi ñaax ndaw yi yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca langue de barbarie rawatina nappkat yi ngir ñu dellu ànd ak daal ci mbir mi te xaar tuuti rek bu yëf yi saafarawe ci lu jëm ci mbirum licence yi su ko defee rek ñu delluwaat jàppaat soobuwaat seeni i liggéey ndaxte loolu mooy li war li neneen lu ñu mën a jàpp daal moo di ki nga xam te ne moom mooy Alioune Badara maître Alioune Badara Cissé di médiateur de la république moom itam daanaka sànq si suba mu ngi yoon fii ci Ndar ñëwoon rek nenneeku si ñi nga xam ne ñoom ñoo am yàqu-yàqute ci euh, mbir mi waaye it euh, xam ne na ne dina euh, janook ñi nga xam ne ñoom ñoo ngànk lii di kuréelu nappkat yi bu ko defee rek mbir mi ci wàllu li nga xam ne moo xewoon ñu jëm ci indi dal moom nag daanaka jamono ji du ñàkk mu ngi xaar ñi nga xam ne ñoom ñooy acteur de la ñu paree ak ministre bi moom it dina dem janoo ak ñoom ngir waxtaan ba tey ci mbir mi di fàtte rek li waraloon mbir mi moo di rek nappkat yi dañoo dañoo ne Euh, dañu nguuru Sénégal da leen diggoon ne daañu jot ci seen i licence euh, keroog euh, ci njëkkeelu fan ci weeru janvier waaye booba tey daanaka jotuñu ñu leen ba tax na rek amoon na ñeneen ñi nga xamante ne jotoon nañu forcé dem nappi fële ca Mauritanie ba tax na ñu teg leen loxo teg seen teg loxo ci Sénégal foofu la ca njaago loolu waraloon nag yooyu la jàmmaarloo yi amoon ci mardi bi ñu weesu ba mu waral sax lu amoon ay yàqu-yàqu yu bëri ñu nemmeekoon rawatina ci agence bu Sénélec fi nga xamante ne dañ saax-saaxee euh, rawatina ci euh, centre de documentation et des archives bu OMVS bi nga xamante ne euh, dañ ko daal di rek taal waaye it ay oto yu bëri yi nga xamante jot nañu leen lakk te mu amoon ñu bëri ñi nga xamante ne jëlee nañ ci ay gaañu gaañu yu métti waaye it lu toll ci fanweer ndaw ak benn yi nga xamante ne jotoon nañu leen rawale démb ca prison loolu la ñu mën a jàpp ci li nga xam te ne moo sooxee ci euh, lii di ëllëgu lii di nga xam te mooy jàmmaalo yi amoon fii ci te tey ji nag jëwriñ bi ñu nekk wàllum napp gi di Alioune Ndoye wàcce fii ci Ndar rawatina ci gouvernance ngir jéem a waxtaan ak acteurs yi jamono ji nag euh, boobu la lël daanaka jeex na age jërëjëf Yves Tendeng ca Ndar ñoo dem ci ñi nga xam ne ñoom tamit dañoo mer ba futtu mu di ay liggéeykat yu nekk ci bérébu liggéeykaay bii ñu duppee ASBEF tey sax dañu doon dox dox boo xam ne bii seen xol neexul dara ndax soxna si nga xam ne moo jiitee béréb boobee yàgg nañoo nemmeeku ne ñoom nee ñu gis nañu ne doxalin wa baaxul te it fi ñu toll yi sax coow li dafa ne kuru ndax dañoo ngonkoo jiit te kenn nanguwul a féeteeg fett ga ñu ngi doon dox doxu ñaxtu boobu lee Babacar sax li gën a fës ci liggéeykatu ASBEF di moo di seenap directrice exécutive Myriam Mingu daal di fay jóge ci lu mu gën a gaaw Mohamed Mingu yow mi yaay directrice exécutive bu volontaire yi ñu la personnel bi nee nañ ci incompétente donc jëlal say bagage nga dem yorin bu jéggi dayoo tegu ci jiixi jaax ak njur njaaj directrice bu ASBEF daal di wane aw tëleem bu ñu sukkandikoo ci manifestant yi lay directrice exécutive bu na dem loolu soxla nous volontaires yi ak jaratu xaddi ndaw si comme présidente ASBEF na fi jógee il élu frauduleusement tey daf et ça fait longtemps ASBEF ku ko xam-xam ne volontaires yi ñoo ko moom donc tey suñu moomee suñu kër créé suñu kër depuis 1971 ba léegi association bi di dem pour le bien-être de la euh, population tey moom mu ñëw ne ñun duñu am accès si kër gi c'est parce que nga tabax sa kër ba pare ñu ne la doo dugg kër gi donc c'est devenu plus grave lii nag c'est le premier pas maintenant nag dox nañ au niveau interne ba sonn la justice a refusé de faire sa partie moom mu dem autorité sénégalaise yi leen di alerter mage amatul activité depuis un an ñu ngi fii bu bailleur andiwul fond na la ñi ñi mën a joxe des services à la population mënul nekk mais partenaires yi yore bu demee ba benn partenaire desatu fi suñu ñëpp a daw desatul kenn Ndiaga Dieng dama ñëwoon pour soutenir marché bi parce que déjà jot naa si bénéficier aussi prestation ASBEF max sama situation bi xew dafa nar détruire ASBEF complètement léegi nag li ma si gën a jaaxal mooy lu tax autorités yi di seetaan loolu nga xam ne ASBEF pour njaboot gi la fi nekkal autorités yi dañ ci war a taxaw ba nga xam ne association bi du suux kii fi nekk nga xam ne mooy créer problème yii yëpp ñu fexe jëlee ko fi mu dem association bi mun a continuer di dox parce que ASBEF patrimoine national la. ci fàttali fukk ak ñeent ca ñoom daal di nañuy ñàkk seen ëppal liggéey ndaxte directrice bi lee daf leen daal di daax Myriam Mingu moom lay nga xamante ni contrat am daal di nay jeex. waaye ba léegi nanguwul a jóge ca kuréel gile di association pour le bien-être familial ASBEF ñoo ko euh, déggandoo coow loolu joxagul ba léegi tey jii itam bu ñu fàttaliku ngeen baal ñu juróom-ñaari fan ci weeru février ci atum 80 1986 ci la Cheikh Anta Diop daal di woon faatu boobu ba léegi nag itam euh, mel na ne euh, fanweer atel ak ñeent bi tey jii lañ koy jëmmal ak màggal ñu denc ko fële ca ceytu ca bo ca bawal ñi nga xam nag ñoo fi ñoo fi nekk ndonoom yore ko ci wàllu xam-xam ak di ay jàngalekat ak ay mbindam professeur euh, ki bii nga xam ne moo di Diallo Diop di kat daal ci maanaam ni nga xam ne Cheikh Anta noonu la gisee woon Afrique ñu war a booloo defu say takkoo di xàccandoo di dóorandoo daan wax itam ci wàllu karange gi ñu déglu professeur Diallo Diop ci micro Moustapha Dieng. mais ci wàllu tabax am réew ak yori nguur ndaxte nguur ci boppam moo waroon rek Cheikh téere boobu dafa ne. Euh, fii ak Afrique bennoowul rabowul ba di waxe benn baat taxaw wane benn jëmm ba noppi ërfoo ràbboo ba nga xam ne kenn du ñu xàjjatle feeg Afrique deful loolu day dellu ginnaaw te dellu ginnaaw bi weesuwul mel ni Amérique latine ni mu meloon loolu la wooyee sud américanisation nee Afrique dafay fédération mbaa mu sud Amérique léegi am na euh, juróom benn fukki at bi mu waxee loolu du mu bindee loolu ak tey xoolal Afrique tey la wàlloo gën a aay te léegi li firndeel ne sud américanisation wu Afrique bi mooy cocaïne bi nga xam ne law na ci Afrique yëpp. ci côte Atlantique bi. ñu fi jàpp rek Sénégal mais fépp la. ñu hmm. jóge ci Angola ba ci Maroc. yàggul sax dégg naa ne yegg na France. kon France ci boppam mu ngi koy ñu ngi koy sud américaniser ndaxte ñu ngi koy cocaïniser. mais loolu sàggan weesul loolu weesul foofu. léegi li ci pexe mooy dellu ci li Cheikh Anta waxoon. xam ne xalaatam ci wàllu. àdduna xam-xam bu la te wóor sax wàllu kaaraange kaaraange Sénégal boobu tamit Afrique waxoon na ne euh, euh, euh, ne waxoon moo jiitu tabax am réew ndaxte faw jàmm am ñit ñi ne seen xel daal pour ñu mën a liggéey seen réew waaye fi nga xam ne dañuy dañuy boom ñit ñi di rajaxe armeel yi mu nga noonu te af terrorisme ñu ko indi Afrique kenn mënul weddee bi ñu daanale xadafi bi français yi anglais yi ak américains yi dal ci kaw xadafi ba boom ko daaneel nguuram ci la saay-saay yi jógee Libye ak seen i gànnaay ñëw dugg Niger Mali ak yegg léegi Burkina Faso waaye kenn mënul weddi tamit ko waa Burkina Faso li ñu leen dal li musiba bi leen dal li ñu dàq Compaoré moo leen ko jural moo leen ko indil jamono yi Compaoré toogoon foofu di fa nekkal tubaab yi ak di yàqal ñoom Laurent Gbagbo ak ñoom seen boobu jàmm rek la moom ci Burkina Faso loxo kon tubaab ba léegi mu ngi ci Afrique di ñoom ñoom ñuy féewale ñoom ñoo ñu féewale ñoom euh, tubaab yi ñu doon ko Cheikh Anta ba léegi fii ni nii mel na ne daal ñi nga xam ne ñoo ko waroon a gën a dundal bu baax a baax am na ci taxawaay woo xam ne wi daal dafa mel ne noonee demeewu ni professeur Moussa Diaw moom ci xam-xam jëm ci wàllu fànn boole muy jàngale ci université ba léegi nga xam ne moo di Gaston Berger ca Ndar noonu la gisee ñi nga xam ne daal ñoo waroon a gën a mën a wéelaat wàllu RND ñu déglu ko ci téléphone Habsa Elimane. Cheikh Anta Diop bàyyi na fi liggéey bu rëy te lu ñu ràññee mooy dimension scientifique mooy recherche yu mu defoon égyptologue la bu ñu ràññee ci réew même si am na ñu contesté woon ay thèse mais liggéey bu mu defoon ci dimension boobu génn na frontière réew mi te am na ñu ci bari ñu sukkandiku ci xalaat yooyu ci recherche yooyu mu def continuer di défendre thèse yooyu. lu ñu war a ñëw ci affaire politique mooy idéologie bu mu développé woon ah africaniste la woon pour fédérer réewu Afrique yi ñu nekk benn donc la ko mën a peser ci négociation yi am ñi au niveau international dimension boobu nag des na parce que ñu ko remplacer ñi nga xam ne ñoo jëloon héritage boobu RND seen daraja wonewul daal ni am nañu xariñu politique parce que ñaari dimension ñu am am na dimension scientifique bi ak euh, dimension politique parce que su fekkee ni nekk nga scientifique rek yaakaar ni nga mën na def politique nga nekk savant te nga bañ xarañ affaire politique loolu nañu ni RND feeñul bu baax te liggéey ba nga xam ni Cheikh Anta Diop defoon na ko am na ñu ci jéemoon daal di ci gëstu mais dëgërul bu baax ci paysage politique sénégalais loolu mu ngi jóge ci ñu ko hérité ñooñu amuñu charisme bu mu amoon moom xarañteewu politique boobu loolu nag moo tax ni RND kenn déggu sax ci langue politique bi mobilisé wul ay jeunes yi ci panafricanisme ba nga xam ni Cheikh Anta Diop doon ci sukkandoo pour rassembler jeunes yi africains yi pour ñu dajaloo pour ñu am seen indépendance pour ñu am seen autonomie autonomie politique mën a liggéey rek pour ñu développer wu ensemble ci rassemblement boobu mu doon wax di ci def di ci jëf liggéey boobu des na RND tey suñu cessé paysage politique bi kenn déggutu ko sax nekk ñoo xam ne ñoo jëloon léegi yi liggéey bi des na te politique day évoluer jamono de évoluer te ñoom nag yaakaar naa seen liggéey des na lu bari te war nañ ci gëstu seet lu tax mu am retard boobu ci wàllu làkk réew bi ak jàng ci sa làmmiñu bopp itam daana ko faral di xeex bëgg wutam loolu wéy moom professeur Cheikh Anta Diop kenn koo xam ne ki sax bokk na ci ñi nga xamee ne daana njër ay mbiram nekkoon tam seen ndongaam kii di euh, professeur euh, Aboubacary Moussa Lam am na lu mu ci waxtaan ak Amadou Moustapha Dieng ñu déglu ko jàng ci làmmiñu réew mi am na am na njëriñ parce que am na ay xam-xam yoo xam ni su fekkee ni def nañu ko si làmmiñ bi nga nàmp mais euh, day nekk boo loo xam ni day yomb si yow parce que man def naa vingt ans université actuellement professeur titulaire la mais ñaata année laa toog di jàng. Hmm. mais yi ma jàng def naa ko si pulaar parce que pulaar lay lay lay kii may may sama sama sama lamiñ yi kii. Hmm. mais ñoo xam ni mosu jaar école bi ñu jàngee loolu mais xam-xam bi bi fi nekk euh, kii kii nañ ko. kon def mel na dañu da da dañuy bët wala ñuy def ay contournement dañu bët. Hmm. c'est direct nga ngay ngay liggéey sa tool ñu ne la engrais bi da nga na nga si def nangamu kilo mais su fekkee nii si français lañ ko bind da ngay am kii bi doo doo xam ne nañ koy defee mais suñ ko bindee si wolof ma ñu bind ko si pulaar hmm. mais daa doser sa engrais euh, góob lu baax mais su fekkee ni si français lañ ko bind mun na sax gaañ sa bopp. ah produit boo xam ni warloo ko salaal warloo ko laal ak loxo da nga war def ay gan soo ko xamul suñ ko bindul sa làmmiñ mais da ngay gaañ sa bopp. Mm. làmmiñu réew mi am nañu importance. Mm. parce que lu tax kenn ko nag. fan la ah? sooxe. Ah? lu tax ko fan la mbir mi sooxe. Ah, loolu moom nguur gi moo xam. parce que nguur gi mooy li Cheikh waxoon rek mu ni lii Senghor di leen wax si tubaab. ngeen di ooy Senghor moo mun tubaab mu ne su fekkee nii si wolof si lamiñ bi ngeen dégg leen wax da ngeen gàddu ay yat dóor ko <laughs> parce que <laughs> li ma leen wax amul fayda <laughs> looloo tax parce que nag ñiy jàng tubaab dañ ko utiliser xam nga euh, lamiñu tubaab dañ ko utiliser pour créer des élites c'est-à-dire que et puis ay élites yi ñoom la ñu euh, utiliser pour noot ñeneen ñi looloo tax nag bëgguñu yëkkati lamiñu réew mi parce que lamiñu réew si ñu yëkkatee du baax si tubaab yi loolu mooy seen problème. li aju tamit ci yeneen i fan la jiital wàllu xabaar yi ba léegi tam gën a dooleel jigéen ñi ngir ñuy gën a sóobu ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu li nga xam ne dañ koy sàkkoo ko saytu fële ci diwaanu ci boor boori Sédhiou ak diwaan boobu nga xam ne moom moo ko séq ci wàllu jàmm ci diwaan boobule loolu mooy yéene yi benn projet boo xam ne bi sax démb lañu ko daal di door foofule ngir rek fexe ba jàmm ak wàllu kaaraange gi gën a yokk itam rawatina ak jigéen ñi gën caa taxaw itam ak jigéen soxna yi nga xam tam dañoo nekk ci wàllu ëtt euh, bi wala dënd bi ñu duppee CEDEAO euh, gën a jàppale itam ci ñu jàppale leen itam ci lépp loo xam na ci wàllu ay koppar yu ciy génn ak itam fonds yoo xam ni daal dana baax lool ñi nga xam nag ñoo di fonds canadien ñoom ñoo def mbir yooyu li ànd ci tamit ak geneen mbootaay itam ngir xool itam loolee nuñ koy gën a euh, saytoo ba mu gën a jëm ca kanam kii di Njaga Njaay mu nga xam ne moom moo di mbootaay googu googule moo leen jiite wala boog jo jaago jaago Ndiaye moom ci boppam am nay kàddu yoo xam ne rotal na ko ki nga xam ni moo ko taatan di Moussa Dramé. dama ñëwoon fii ak autorité yi ak représentant ambassade du Canada ak gouverneur ak jigéen ñi nga xam ne dañ bokk ci organisation yi ak ñu bokk ci région yi ak ñetti département yëpp muy département Sédhiou Bounkiling ak euh, Goudomp ñu ñëw pour lancer projet bi maanaam dañ ko doon ubbi pour xam ni projet bi am na dafa bëgg soxal jigéen ñi ñu tàggat leen ba nga xam ni lépp lu jëm ci politique mais lu jëm ci yeneen domaine économique ak social ñu tàggat leen ba ñu am ci taxawaay bu wóor taxawaay bi mooy ñu nekk fi nga xam ni dañ fay nas ak di fa noccee di fa décider ñu bañ leen rek bàyyi nit ñi di décider seen plan mais lépp loo xam ni am na fii ñu mën leen ci boole ñu indi ci seen xalaat ba nga xam ne lu ñuy def ëllëg dinañ leen ci sédd dafa am lël bu ñuy commencé suba commencé woon nañ ko sax Dakar équipe bu projet bi di bind ay téere yoo xam ni ñu ñuy wax ay uti yu ñu war a liggéey ak ñu ñu ci jàppale ak suñuy partenaire ak consultant suñu paree ci loolu suba lañ koy àggale fii finaliser ko ndax trois départements yëpp ngi fi te joxoon nañ leen ko bañ sotti ci seen xalaat suñu paree dinañ fi am lël lël boo xam ni ñeenti fan fii ba altine lël bi li ñu naan leadership wax nañ ko ci salle bi femme paix et sécurité wax nañ ko fi genre wax nañ ko fi participation politique wax nañ ko fi loolu yëpp dañ leen ciy tàggat teg leen ci yoon sunu paree nag ci loolu ku nekk da ngay dem ci sa département ak dem ci sa localité pour donc li ñu la jàngal fii nga jéem ko sotti foofu. problème d'extrémisme violent et de terrorisme pour le gouverneur qui nous demande d'avoir l'habitude de dénoncer. ñoo ko déggalu waaye nag li nga xam te moo aju ci wàllu diwaan boobule euh, soxna si moom di Fatou Diop ba mi ngi koy rafetlu bu baax a baax bëgg itam yeneen nattango jigéen ñi tam mu gën leen a ñaax bu baax a baax ci Sédhiou su ko defee luñ ci man rek ñu gën caa taxaw ñu déglu ko ci micro Moussa Dramé. Euh, yi. pour wax leen ñaax leen ci projet boo xamante ne ambassadeur Canada moo ko indi Sédhiou projet bi ñu ngi koy wooye ah le projet canadien d'initiative locale looloo ñu indi fii tey pour ñu wax ak femmes yi wax leen naka la ñu war a def ah pour xam seen ak ak seen yëlëf yëlëf ci biir politique parce que yenn saañ femmes Sédhiou yi ñu ngi fi xamuñu naka lañ seen taxawaay par rapport ak politique naka lañu war a def ci seen biir kër naka lañ war def pour éviter euh, violence yi gàllankoor yi mais nag tey moom ak projet bi à partir de suba dañuy renforcer suñu capacité dañuy former femmes yi pour ñu xam ñu après ñoom dinañ dem former seen yéen i morom pour que ñëpp taxaw tem xam naka la ñuy def en matière de renforcement de en matière de politique lan na ban taxawaay la ñu am ban taxawaay la ñu am si suñu famille pour ñu éviter violence. laaj bari ñu dem ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Maodo asalaamaaleykum ko am door na tey jongante yi tey jii nag dina am ay doomu Sénégal yu bëri yoo xam ne dinañ leen sóobu tey ci wàllu jongante yi di fàttali nag Sénégal ñaar fukki combattant ak juróom la yóbbu foofu nga xamoo moo nekk ca Maroc ñu wax ci wàllu football at bu nekk nag équipe dafay génne ñi nga xam mooy footballkat yi ëpp payoor fële ca Europe euh, ca France Neymar nag moo jiite ak ñi ànd ak moom ci Paris Saint-Germain Idrissa Seck nag Idrissa Gana Gueye moo jël 16e moom nag 500 000 euros lay am weer wu nekk. Euh, football ba tey la ñuy wax ak tamit ci wàllu raw gàddu gi ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci 9 journée Ligue 1 bi bokk na ci Teungueth FC Mbour Petite Côte Dakar Sacré-Cœur Niary Tally Jàmbaar Jaraaf dimanche am na Casa Sport Cneps Douane Diambour Stade de Génération Foot Gorée ak AS Pikine ci Ligue 2 bi nii la programme bi daal di tëddee 9e euh, journée bi Renaissance EJ Fatick Sonacos Amitié Jamono Fatick Demba Diop Guédiawaye Wakam na Africa Promo Foot lay jeex diggante équipe bi di Port ak Linguère bu Saint-Louis kuréel gii di comité Socrate Abdoulaye Diaw tey jii nag amoon na conférence de presse nañ ci dellusiwaat ak ki nga xam moom moo nekk Odile Milclan kuréel googu nag bokkati ay taskatu xibaar waaye tamit ay football kat basket la wax ak fédération bi nga xam ne nag door na tey ji ajuma ji tàggat ñi nga xam ne rek moom moo jëm ci nouveau commissaire yi waaye tamit recycler nga xam ne ñoo di mooy euh, fexe nag ba dëkk bu nekk am commissaire waaye tamit ñi nga xam ne kat ñoo fi nekkoon commissaire mën nag dem nekk commissaire FIBA kàddu yi kortal chaque année dafa war am recyclage ñun daan jëlee commissaires yi léegi war nañ ko améliorer dañuy de formation loolu yëpp ñu ngi inspiré wu ci réglementation FIBA ci la ñu formé woon vingt commissaires yoo xam ne vraiment ay nit yu am xarañte la parce que ñi ay anciens arbitres la ñu ñi ay anciens directeurs technique ñi ay anciens joueurs ñi ay anciens président de ligue yooyu noonu ñooy commissaire léegi nag chaque année dañ ko war dañ leen war recycler maanaam Euh, dool dool li leen xel rek ñu échanger pour seen niveau ak yi am changement ci diggante bi ci réglement bi ñoom ñu mun ko xam beneen bi mooy dañu seetlu ne am na am na ci ci Sénégal léegi dañuy jouer basket presque partout te am na ay zone yoo xam ne amuñu fa commissaire ce qui fait que commissaire yi dañ daan def distance bi sore dañuy gis commissaire bu war a jógee Dakar pour dem Sédhiou wala Bignona wala wala Tamba wala Ziguinchor wala yooyu Kaolack ñu ne tamit zone yooyu nañu former ay commissaire Euh, moo tax bi bi formation dafa am recyclage ak ak formation bu yem dakaar rek buñ paree dakaar am na yeneen zone yu ñu ciblé zone centre dañ fay def formation euh, ba yeneen semaines yi di ñëw ak zone sud pour daal que Sénégal fépp foo xam ne ña ngi fay def basket ñu am fa techniciens yu jege yoo xam ne danañu mun a représenter fédération ci lieu compétition looloo tax ñuy ñu ñu ñuy def euh, chaque année recyclage commission boobu nag commission compétition mooy gérer. comme euh, corps commissaire yi et donc euh, ñoom ñoo décider chaque année date bi ñuy def recyclage ak kii defar seen calendrier soumettre ma ko comme que man maay expert bi fi nekk ñu ñu joxe suñu apport pour jàppale leen ci formation. di fàttali nag championnat waroon na door suba waaye dañ ko dàq bu fukki fan ak juróom ci weeru février bi ndax kat am na équipe yu bëri yoo xam ne amaguñ nag seen affiliation Haj Maodo jërëjëf eh, El Hadj Malick kon nag ñu dem ci xët wi nga xam ne moom la ñu jagleel wàllu aada ak cosaan. dal leen a jàmm ki seen xibaaru mbatiit. wan nañu leen kon ne mbooloo lañu soxla mu yeewu xam fu mu jëm war a war a ànd di benn baat di jënn jënn war a yóotu li mu soxla jot ci. loolu ni ñu koy defee suñu parti bi wan na leen ni bu ñu ko bëggee def nan mën a def di leen yee ci làmmiñ yoo xam ne wi da koo xam ngeen namp ko ñu naan leen damana damana ngeen naan xaang. di ngeen ko itam naxi gouvernement bii fi nekk tey wane nañ ko ci loolu Sénégal bu ñu ko séddalee téeméeri cër juróom-ñeent fukki ñeeg juróom yëpp ay wolof la ñuy wax en tout cas juróom-ñeent fukki ñeeg juróom yëpp dégguñu ay tubaab kon nag mënuñoo fekk réew mi ñu yor ko ci làmmiñ woo xam ne bii bu ñu tànnee asaka ji sax dégguñu làmmiñ woowa làmmiñu tubaab moom la ñu fab ñage ko seen digganteeg mbooloo mi ba mbooloo mi du xam dara ci naq sa xam na yi nga xam ne moom la ñuy wax guddeeg bëccëg su ngeen ko ku mënoon waxoon ñetti baat ci tubaab bu lakkee ci rajo bi ngeen daal di xeeb seen bopp ne man baa doon laa jànguma daal di tiit defe ne lu ñuy wax am na maana te bu ñu ko waxoon ci wolof ngeen fab yëpp juróom-ñaari fan ci weeru février 1986 juróom-ñaari fan ci weeru février fanweeri fan ak ñeent ngi nii ñiy fàttaliku dëddug àdduna Cheikh ante Diop moom mi nga xam ne xeltukat la bind bindkat gëstukat bu am solo ci Afrique ci Sénégal ci Afrique ak ak ci àdduna wangal kàpp niki noonu tey ji la ci àjjuma ji dina am benn conférence bu mag boo xam ne kii di Boubacar Boris Diop moo koy waxtaanee jëm ci wàllu lan la fi Cheikh Anta bàyyi ban xalaat ak ban pas-pas la fi Cheikh Anta Diop bàyyi ndaw ñi. laata loolu nag amoon na it benn marche boo xam ne dox la jóge Ndakaaru dem ba Ceytu ngir it fàttaliku ki nga xam ne moo di Cheikh Anta Diop. doxkat yooyu la sax jot nañu yegg si Ceytu jot nañu yegg Ceytu bisu tey bile ña ngay ànd ak askan wa ki nga xam ne nag moo jiite doxkat yooyu le di Diouf Kéemaan dellu fexe daal ba ngi taxawal ba jëmmal bésu juróom-ñaari fan ci weeru février bi lee daal koy dugal ci calendrier officiel bi di ko màggal ni mu waree bañ koo sofantal. waaw ndaxte euh, déjà euh, ñun bi ñu egsee sax euh, bon jotu ñu dem ci mausolée bi daf ñu dañuy xaar ba bésu anniversaire bi ñu dem fa pour mu nekk loo xamante ne dina marqué déjà marcheurs yi et aussi tamit ci ci dëkk bi. Euh, am na ay ñaan yoo xamante ne dinañ ko defal euh, Cheikh Anta Diop aussi tamit euh, jeunes yi nga xamante ne fekk nañ leen fi ak ñi nga xamante ni ñu ngi ñëw pour participer ci anniversaire disparition Cheikh Anta Diop. des fois autorités yi dañuy bëgg dañuy xaw a ñàkkal fayda bés bi. ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko waroon gën a jox fula dañ koy xaw a ñàkkal fayda donc loolu autorité yi ñu ngi leen di ñaaxaat ñu leen bés bi ñoom dañ ko jox fekkente ne ñoom xam nga ne Sénégal Cheikh Anta defal na ko lu rëy defal na lu rëy àdduna bi donc li nga xamante ne moom la dese dañ ko jox ñun li ñu bëgg mooy que effectivement journée bii nii ñu inscrit ko dans le euh, culturel du Sénégal ba pare leen li nga xamante ne moom la ñu moom la ñuy ñaan suñu njiit yi mooy que date composition yi nga xamante ne dafa dafa ëmb bés bi ñu daal di koy décaler ñu def ko ñu def ko avant wala ñu def ko après ñu def ko après composition yi ñu def ko avant jour sept février yi ndaxte loolu dina gàllankoor ay élèves yu bëri maanaam bu fekkente ne composition dafa tombanteeg le sept élèves yi du mën a bàyyi seen composition di ñëw donc loolu boo xoolee ba si biir sax day mel ni sabotage ndaxte leer nañu ba leer ne calendrier composition yi depuis temps bi nga xamante ne ñun France moom moo ñuy wax li ñuy def parce que ba léegi sax mooy kon li ñu wax li ñuy def loolu dafa bokk ci lii nga xamante ne day dañoo bëgg a teg ker ci kaw Cheikh Anta Diop. donc ñu ngi leen di ñaan datu composition ñu daal di koy détaillé def ko avant le set ba nga xamante ne élèves yi nga xamante ne am nañ yéene ak seen accompagnateurs yi am nañ yéene ñëw ceytu ñu daal di déplacé wu ñëw ceytu taxawaayu Cheikh Anta Diop lu jël ci wàllu politique ak wàcc ak ci wàllu xam am it loo xam ne lu bëri la jëm ci wàllu aada cosaan loolu lee ki nga xam ne moo ñu koy leeral moo di professeur Diallo Diop moom mi nga xam ne bokk na ci waa RND waaye def suuxat xam-xam ak xalaatu Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta boroom xam-xam la woon bu amul morom. te fu ne la dugg fu ne la laal. ci wàllu xam-xam ak gëstu. ba ci wàllu jëf ak politique ci wàllu xam-xam moom léegi daanaka kenn weranteetu ko amatu ci benn nattable ñëpp séddale nañ ko ne li mu wax moo am ci démb ak barkaati démb wu Afrique fët fii la lépp soqe ko muy nit ak i bakkanam muy xam-xam muy aada muy diine muy làmmiñ muy bind muy xayma lépp lépp lépp fii la jógee ñoo ko jàngal yeneen xeet yi yi nga xam ne ci ñun lañu soqeekoo loolu moom wen kenn weranteetu waaw loolu moom liggéey na ci liggéey na ci bu baax a baax a baax a baax te du wàllu xarañ ak xam-xam ak science ci wàllu politique la ko def dama jox la ci ab tegtal RND bi mu koy taxawal moom ñetteeli parti bu mu taxawal ci réew mi moom bu mujj bi RNDS la waxoon ci manifeste bi moom moo dindi Sénégal bi mu nekk au lieu mu doon rassemblement national démocratique du Sénégal mu def ko rassemblement national démocratique tout bu boobaa képp ci biir Afrique di nga ci mën a bokk soo defee Sénégal rek da ngay yem ci Sénégal doo dem fet jóge ci loolu daal di wax ci festival international bu Sédhiou bi nga xam ne jàpp nañ ko euh, mu war a tàmbali ni ki àjjuma jile foofu la ca dëkk ba jàpp nañ ne nag ay dëkk yu bëri te wuute daa ngi teewee bi li xew-xew bi nga xam ne dina fésal li nga xam ne moo jëm ci wàll mbatit bu yaatu te fees bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci foofu la ci pakaaw bi nañ ki déglu ki nga xam ne moo di président comité d'organisation bi di El Hadj Omar Kanté. parce que communiqué conseil des ministres bu ñu jëloon fii 2015 moom moo waxoon ni dinañ jox Sédhiou jagleel. région de Sédhiou benn euh, événement culturel moo xam ne cosaan ak aada foofu lañ koy wone ñu koy naan journée culturelle ñu relancer waa journée culturelle bu ñu suñu maire bi nekkee ministre monsieur le maire Abdoulaye Diop donc lu si boobu la projet bi am euh, forme ñu ngi koy démarrer tey fu ñu toll nii daal euh, gaal bi taxaw na fu mu nekk nii ñëpp yéeg nañu ak quelques heures ñu jox top d'envoi pour le festival international de Sédhiou gis nañ ni ñëpp ñoo ñu wuyu te dinañ wone suñu aada cosaan wane Afrique euh, ak euh, sous-région bi lépp lu ñu boole tey lañ koy wane fii ci Sédhiou. di noonu dina am ay programme yu bëri te wuute jëm ci wàllu xumute yu nga xam ne ñu ngi koy xaar ci boobu la festival. festival boobu la nag doon loo xam ne dafay dëgëral wàllu jàmm ji foofa la ca foofa dëkk ba nañ ki déglu ki nga xam ne moo di directeur centre culturel régional bu Sédhiou di Aline ba Badiane ci micro Moussa Dramé. ci wàllu caada danañu wone lu bëri parce que festival bi mu ngi xaar lu ñuy wax diversité mooy permettre ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi si seen cosaan ñu mën a daje ku nekk mën a wone cosaanam lu muy wone mooy dana wone lépp li nga xam ne ci foire économique la ñi ñi nan la ñuy produire seen euh, seen. production bi lépp dinañu seet na lañ koy mënee wone ci économiquement parlant mais foire bi tamit dana permettre nit ñi ñu mën a échanger indi seen i produits locaux indi les produit transformés par nos braves leneen li ci yokk nag ci organisation bi mooy euh, plateau artistique yi yi nga xam ne ñu ngi xaar ay troupe yu jóge fu ne troupe yi danañu jóge si Sénégal certes mais am na troupe yi nga xam ne ñu ngi jógee ba bitim réew mm-hmm. donc di ci cité ay Burkina Faso ay Côte d'Ivoire ñi nga xam ne seen troupe yi ñëw nañu mais seen slameur yi tamit mm-hmm. côté intellectuel bi tamit wala Gambie ak Guinée Bissau bu ñu gën a jege mm-hmm. ñëppaa ngi ñëw tamit agsi nañu vraiment leneen li nga xam ne mooy cérémonie officielle bi ñu ngi ko war a defee tey nag moom ñu ngi ciy xaar ay hôte de marque mooy ministre maire invité na fa ay nit ñi ñi nga xam ne ñu ngi jógee fu ne ci bitim réew mais tamit ñoom bu ñu ñëwee daañu gis suñu cosaan mais daañu gis cosaanu dëkk yu ñu gën a jege mais daa ñu jis cosaanu àddina ndaxte àddina la ñu woo ci Sédhiou am yaakaar ne àddina bu teewee ci Sédhiou ku fa ñëw nag gis loo xam ne nag moom àddina moo ko wone fi la ñu ndar keppee seen xibaaru mbàttiit jëri ngeen jëf